ñoo fi taxawoon demb ak barki demb ne le président Macky Sall moom mooy le candidat bi nga xamné mom moy candidat bi gën ci réew mi mom moy candidat bi gën ci Sénégal mom moy chance pour Sénégal nek chance pour Afrique gënaaw bañu séppé sen loxo ci ndap li gënaaw bañu séppé sen loxo ci réew mi par incompétence ñom tay ñu mer laqatu ci ginnaaw li ñi wax opposition radicale pour gakkal ligéyu président de la République bëgg ko jaare ci rakam le maire de Guédiaway Aliou Sall. nous demandons aux Sénégalais que Thierno Alassane Sall na répondre ci accusation yi nga le représentant de Aide Sénégal def na ko ko moom accusé nañ ko fi démb que moom dafa def corruption ak concussion et tentative illégale d'intérêt yoo xam ne moom la doon jéem a luubal ci wàllu contrat yi ñu doon signé ak Aide pour de rurale am na keneen ku ñu dégg mu naan am na xaalis bu mu luubal bu ñu leen jox donc kooku na répondre ci yooyu te Aliou Sall mi nga xam ne moom la ñu bëgg a tey jiiñ li nga xam ne moom mooy ay luubal moom taxaw na devant l'opinion taxaw na devant askan bi yépp ne moom du lenn lu dul jullit te jullit bu nekk yaakaar naa ni li gën a foor ci yow mooy alxuraan mu waat ci kaamilu alxuraan ne moom liñ koy tuumaal dara amu ci bu dul dara nañ gëm ndax téere boobu mu yoroon boo ko gëmee rek xamal ni yow li ngay wax bu ëllëgee boo ko tegee ci dëgg nit ñi mën laa déglu waaye yow mënoo ne yow kii li mu wax dëgg la wala du dëgg te ñemewoo lam def kon kooku ñi ngi koy wax ni moom bu dee li muy wax moom it dëgg la ci moom wala li ñu koy jiiñ dëgg la na def ni Aliou sàll ak keneen ku mel ni moom ñuy wax aussi

avec son fameux euh, contrat de couscous marocain de 400 milliards yi mu doon jéem a lësal rësal fii mook jabaram xamna ñu mujjé kon ñom buñ ñu tax a wax ñoom yaakaar naa ni keneen ñu wara jox ay leçons de morale waaye du ñom ñu bëggona xamal sénégalais yi ne Aliou Sall du lenn dul frère frère Macky Sall motax ñu bëgg jaar ci mom pour yàqal ko la olof doon wax naan nit ku lay wut jéem jéem jotu la dafay xool fa mu gëna a mu jaaré fa